mu nekk ab visite de courtoisie bi nga xamante ne day marqué retour fi lépp commencé ay at ginnaaw bi mu demee directrice générale TDS bu bees bi daal rek ñëwaat si biir 7TV Aminata Malick Sarr daal di rek justifié li waral mu daal di choisir bi groupe. Euh, li nga xamante ni moom mu bët euh, suñu tànk yi ñu indi tey fii nii ci 7TV bokk na ci euh, ki nga xamante ni mooy jëmm jii di madame Maimouna Ndour Faye nekk mag ci ñun nekk benn référence ñu nekkoon tamit ndongoom mën naa ko waxee noonu ndax ñëwoon nañ fi doon fi def stage mu formé ñu lu bëri jàngal ñu lu bëri li nga xamante ni tey ji xam nañ ko as tuut ci secteur média kon tey ji war nañ ko mën a ñëw gis Euh, am yaakaar tamit ci moom bu baax ci mu jàppale ñu ci suñu liggéey. bile visite nekk na occasion bi nga xamante ne directrice générale bu 7TV Maïmouna na door daal na rekk ñëwaat ci attente yi média privé yi am ci télédiffusion bu Sénégal. Euh, la alors que ñun moom Aminata daal xam ne ni ko xam na enjeu yi koy xaar te nag mu fas yéene relever défi yi. donte nag euh, yëngu-yëngu am na ci euh, milieu euh, ci biir presse ci milieu taskatu xibaar yi waaye am na yaakaar ni lépp dina saafara dégg nañ li nga xamante ni moom lañu dénk te jàpp nañ ni aussi am na jéego yu ñu war a mën a teg. ngir euh, saafara euh, lépp lu nga xamante ni rek mooy ay jafe-jafe yooyu am nañ yaakaar bu baax. ca wàllam présidente directrice générale bu groupe 3M universel Maïmouna Ndour Faye daal di rek rafetlu bile visite te nag mu daal di woo kii jiite TDS SA mu wëyal bile initiative ngir rek mën a togg ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu média ngir mën a rek dëgëral diggante bi.